Euh, si wadi waxoon nañ li si aju ak ma mani yëpp waxoon nañ li leen teqale wax nañ lépp la waxoon nañ lépp lu si aju te nag ñuy jàng deretu jorngal mu ne wa ma damul istihaadati ndaal deretu jorngal fa yajibu dana war minu si moom alu duu njàpp wa istahabu danañ sopp tamit njàpp lu di ko ñeel lii loolu mu ne deretu jorngal dana waral njàpp tamit dañ sopp si moom tamit mu jàpp kañ waral njàpp moom mooy bu dee moom mooy bu dee li muy teqalikoog moom moom moo li muy teqalikoog moom moo gën a bëri li muy teqalikoog moo gën a bëri comme li muy ñëw matu genn wàllu suuf bi boobu moo foofu lay waree mu jàpp kan la ñu sopp mu jàpp moom mooy bu dee dafay bu dee li muy ñëw maam euh, genn wàllu jour bi la wala lu ëpp si jour bi foofu la ñuy soppee euh, mu jàpp waaye foofu même bu dee dafa jafe sax kon boobaa jéggal nañ ko ko fa lañ koy jégalee nag foofu moom mooy bu dee li muy ñëw bu dee journée bi yëpp lay ñëw foofu moom jégal nañ ko sopp euh, mu jàpp jàpp waru ko te tamit soppuñ ko mu ñëw mu ñëw day suuf mu ne wa ama damul istihaada waaye deret jongal woo moom xaarajun aji génn la minal marati si jigéen ziyaani lu yokk ala ayaami aadatiha si fanu aadam aw istizaaya wala fañu fañu fañu mu ñu ni ko mi nee na deret jongal moom si jigéen lay génnee xam jigéen moom dafay am dafay am mbërëg bu dee dafa am bërëg nag bu dee koo xamante ni maanaam baaxoo kaa gis mu day toog fukki fan ak juróom léegi bu toogee fukki fan ak juróom yooyu noonu ba mu jeex nag loolu euh, loolu loolu la ñu fa ñaa bu jeexee rek li muy gis noonu moom mooy bu demee ba mat fukki fan ak juróom nga xam ne du si yokkaat dara ba foofu deret jee génn noonu loolu la ñu tuddee deretu jorngeel amaana bu dee koo xamante ni kooku baaxoo na kaa gis bu dee moom bu dee moom euh, dañuy xool la mooy aadam rek bu doon aadam cinq jours la ba di si yokk trois jours bu si yokkee trois jours yooyu noonu léegi gannaaw noonu euh, gannaaw gannaaw fan yi mu ko muñee ni ko noonu léegi gannaaw noonu loolu la ñuy tuddee daretu jorngal mu ne fa yajibu dana war minu si moom alwudu njàpp faqat donc ala ala mashhuril si lu gën a siiw si ngir mi kaan bu nekkee naaqilan di ay yàqliwu di ñeel ñàppoom wa zalika loolu bi an yaxruj moom mu génn mina si moom la ala waji sel si waa xamis alma toxal bi an yu faariqa te mooy mu teqale ko moom ak sara zame si bés bi aw qadara wala mu mën ala rafin yi faj ko léegi kale war mu jàpp moom euh, léegi loolu dafay war mu jàpp naka noonu tamit si euh, si waa ngiru imaam Maalik Euh, loolu moo si gën a siiw kañ lay yàq njàpp nag moom mooy bu dee dafay génn si moom te li muy bay génn si moom li muy teqali ko moom moo gën a bëri waaw li muy génn si moom si jour bi moom moo gën a néew foofu lay yàqee njàpp amaa nag bu dee nag li nga xamante ni moom mooy genn wàllu jour bi wala lu gën a bëri jour bi wala journée bi yëpp yooyu moom du yàq njàpp waaye genn wàll jour bi ak lu gën a bëri jour bi foofu moom dañ fay sopp mu jàpp waaye foofu sax bu dee moom mën na kaa faj te faj ko kon baa yooyu yëpp dafay àndandoo yàq njàpp mu ne waa ma waa ma lu laazama waaye bu ko waroon wala nisfa zamani dont genn wàllu jamono ji la ah, falaaj bu du war a aleya si moom minu si moom alwudu njàpp way nama yustahab naka dañuy sopp njàpp rek laa di ko ñeel bu dee nag dafa ah, dafa taxaw moom même bu sax genn wàllu bis bi la kon boobaa kooku jàpp du ko war waaye dañu sopp rek mu jàpp nga déggee tamit lu gën a bëri jour bi wala journée bi yëpp loolu tamit du war mu jàpp waaye lu gën a bëri jour bi comme noonu la ko waxee woon foofu lañ soppee mu jàpp waaye journée bi yëpp moom luñ sopp mu jàpp te tamit jàpp du ko war ñu demaat seex bi si kaw mu ne war sell sil bawli ñeel na toqaloog tuur ndox ak yetoo daa mu jàpp li kulli salaatin ñeel bépp julli loolu lay waxaa fii mu ne wali si la sil bawli ñen dana toqal ak bi kasri laam si kasara laam bi ay lim si nam li cheikh si ñoo jëmm allazi bi nga xam ne xaarawu nar na ko al tuur ndox bi fa sa sa mu toqal euh, fa la sa salasa bu ismu faa'il la muy tur aji jëf ji la woowu moom almunaasib moom mooy lu dëppoog li xawli ngir waxam laa di ko ñeel ay yetoo daa mu jàppal ko li kulli salaatin ñeel bépp julli waa ji dafay euh, toqal dafay dafay toqal tur maam mu koy noonu muy toqal tur nee na bu dee euh, nee na dafay dafay dafay jàpp maam bépp julli rek nga koy jàppal loolu nag moom mooy bu dee moom mooy moom mooy moom mooy bu dee euh, moom mooy bu dee bu dee li muy teqali ko moom moo gën a bëri kon baa foofu moom da jàppal sax waxtu julli wala sax li muy ñëw waa wala sax li muy ñëw génn wàllu jour bi la foofu moom dañ koy sopp rek foofu moom bu ko nee la ngay def bu mënut bu dee dafa jafe si moom kon baa sax di ko soppati wala bu bu dee dafay ñëw bu dee dafay bi yow moom kon baa foofu moom dootuñ ko sax dootuñ ko sax soppati mu ne wa zalika loolu fi suura tey ni si ñaari melo yii la mooy ayu lazima mooy mu taxaw moom julla zamani lu ëpp si jamono ji aw nisfahu wala genn wàllu jamono ji mu ne wa maxallul istihbaabi borom sob bi nag illaa yu siqu lu mooy mu jëfee alayhima si ñoom ñaar te loolu nag si ñaar moom mooy mu toqoog moom lu ëpp lu ëpp si bis bi wala sax genn wàll bis bi waa waaye nag foofu foofu moom mooy fi nga xam ne moo ñu soppee mu moom la ñu soppee mu daal di jàpp nee na nag loolu borom bi ñuy soppee noonu nag bu demee na ba nga xamante ni jafe na nga xamante ni du ko mën du mën sax waxtu mu koy jàppal bu ko jëfee rek kon boobaa moom Euh, euh, kon ba kon ba foofu duñ ko sax duñ ko sax soppati mu ne tan bi xaatun li ay yeete la al awalu bu njëkk bi ulima xam nañ maa qaranaa si ñu sax bi bi maa qaranaa si leeral bi si moom kalaal musannif wax taalifkat bi min wujubil wudu'i si war a njàpp alaama si la xam ne faaraqa taaxalikoog na moom ak saruhu li si gën a bëri aw qadara wala mu mën ala rafa yi si faj ko nee na Euh, nee na nee na jàpp bu dee euh, loo xamante ni dafay teqali moom lu gën a bëri si lu gën a bëri jour bi euh, wala sax teqali koog moom lu gën a bëri jour bi waaye comme maam genn wàllu jour bi lu gën a bëri jour bi waaye moom mën na kaa faj te faju ko kon ba jàpp ni ñaareel yooyu yëpp dafay yàq njàpp daal jàpp nañ daal bu dee dafay teqali bu dee dafay teqali moom li maam lu muy ñëw lu gën a néew si jour bi la. waa foofu moom dafay yàq njàpp nu mënta demee naka noonu tamit bu dee genn wàllu jour bi la wala lu ëpp si jour bi waaye moom mën na kaa faj te faj ko jàppal ni foofu tamit nu mënta demee dafay yàq dafay yàq njàpp mu ne wala istihbaab li jamono nga sopp alaama si nga xam ko jull euh, jull julle zamani lu ëpp si jamono ji aw nisfa zamani wala genn wàllu jamono ji nee na doro bañ koy soppee nag moom mooy bu dee maam bu dee foo xamante ni maam maanaam foofu mënu kaa faj lu may wax fii moom mooy bu dee mënu kaa faj te li muy génn génn wàllu génn wàllu bis bi la wala lu gën a bëri si bis bi la te moom mënu kaa faj foofu la ñu waxee ne da koy sopp dañuy sopp mu jàpp amaa bu dee moom mën na kaa faj te faj ko génn génn wàllu jour bi wala lu a bëri jour bi mu kaa faj te faj baa foofu la ñu wax dafay yàq dafay yàq njàpp mu ne indifaaw tanaa tanaaqusi ah, jañak ah, jañak wuutee allazi bi nga xam ne idaa woote na ko baadu ñenn ñi fi kalaami si waxam nee na maam jëm wutee bi nga xamante ñenn ñi ñoo ko mooy borom saraab li mu wax si kaw ne mu ne mu ne mu ne maa dem mu ne deret jorngal day war mu jàpp te tamit dañuy sopp si loolu maa moom na mu si loolu day war njàpp ba pare ñu sopp ko de waaye lim si tam moom mooy bu dee dafay bu dee dafay teqale ko moom lu gën a bëri foofu lay waree mu jàpp wala sax teexalu ko moom lu gën a bëri waaye dafay génn génn wàllu jour wala lu a bëri jour bi mu mën faj te faj ko na mais dafay yàq njàpp dañuy sopp mu jàpp bu bu dee mënu kaa faj te li muy génn génn wàllu jour bi la wala lu gën a bëri si jour bi moom foofu loolu la fi loolu la fa namm ne asaani ñaareel bi xawlul fi wax taalifkat bi li si bawli ñeel ah, toqalak tundox kaanal nekk na al ula bu njëkk bi nee na taalkat bi li mu wax moom mooy comme ngir koo xam ne dafay dafay tur ndoor rek ci bu njëkk bi mu ne wala saaxi bi selesi ne waxoon bu waxoon comme saaxi bi selesi maam borom ak toqa nga xamante ni léegi boole ñeel tur ndoor kaan nekk na ala awlaa bu gën a yee mu ne wala saaxi bi selesi ñeel na borom ak toqal mu waxoon li saaxi bi selesi ñeel na borom ak toqal ndox léegi mu dana làmboo ah, saa iral ahdaas yi mboolem toj yi boolem tur ndox aw rixan wala ngelawal aw masiyen wala masiyu aw maniyen wala maniyu dana moom ama dafa waxoon ah, toqala tunaw li salasi boole kese la waaye bu waxoon saaxibu salasi nga xamante ni dana làmboo mboolem toj yi ah, moo ndox wala ngelawal wala masiyu wala maniyu mu ne fa inal jamee nag yooyu yëpp sawaan ay yemoo la fi aadami naqdi si yàq ah, si si ñàkk si ñàkk yàq ñaab allis bi nga xam ne xaraja dana génn minaa moom wala lazima mu taqaw moom wala nisfa zamani donte genn wàllu jamono la xaaj xaaja bu lotee an rafan yi si faj ko ne waa maalaw qadara waaye bu mu nee nag yi si faj ko ah, mu ah, dawaayin biddi dawaayin comme ah, si si mu saafara mu saafara aw aw aw wala mu ut jaam fa innahu naka loolu yëkkoon day nekk naaqiyan di lu yàq njàpp illaa fi muddati tadaawihi lu may jamono ji nga xamante ni moom lay faju nee na comme mu toxal ndax mu laamu mboolem toj yi am tuur ndox wala ngelawal wala magi wala mani yu ne ne yooyu yëpp ah, ne ne yooyu yooyu yëpp ay yemoo la si nga xamante ni dafay yàq dafay dafay dafay yàq ñaaw nga xam ne dafay génn si moom mu taxoog moom même bu dee sax genn wàllu jamono ji la wàllu bis bi la kon te te moom ah, te mu mun kaa faj te faju ko amaana bu dee dafa see lott moom kon baa du yàq ñaaw nee na bu dee da kaa mën a faj comme ni nga koy fajee comme comme mu dem hôpital ñu faj ko saafara daal boo xamante ni moom moo koy faj wala sax wala sax mu ut jaam ah, kon ba bu dee wala sax mu ut jaam kon ba foofu ah, bu dee bu dee jamono jooju bu dee moom mën naa mën naa ut jaam wala mën naa dem ah, hôpital ñu faj ko te def ko kon ba foofu dafay yàq njàpp amaa nag bu dee nag dafa dafa dem ut jaam wala mu wala wala dafa dem ut jaam wala sax muy faju si jamono jooju noonu kon ba jamono jooju moom du fa jamono jooju noonu muy ut saafara noonu anam yi rek lay lay demee bu dee dafay génn euh, dafay génn chaque jour kon boobaa euh, kon baa jégal nañ jég kon baa jégal nañ ko soppuñ ko sax bu dee dafay génn lu ëpp jour bi kon boobaa jégal nañ ko waaye dañ koy sopp bu dee dafay génn génn wàllu jour bi jégal nañ euh, bu dee dafay génn génn wàllu jour bi kon boobaa jégal nañ ko waa waaye dañuy sopp rek mu jàpp lu may mu jafe si moom bu dee nag dafay génn lu gën a néew si jour bi maa lu muy teqali ko moom moo gën a bëri lu muy génn matul génn wàllu jour bi kon boobaa foofu moo foofu lay war a warale mu jàpp ba mu ba mu jamono yooyu jamono yi nga xamante ne moom mooy faju moom baa ñeent année bi rek lay utiliser waat mu ne ba mu dëtu istibrail amati di rek laablu jàmbe almustaraat bay bay aji bay aji jëñ na ko doon tamit diir bi nga xamante ni moom lay toog jàmbi noonu xam nga ñoom buñ daan buñ seen jaam yi jamono yi njëkk jamono yi jaam daan bëri jamono yooyu ñoom buñ dinaan jaam na ñoo xam ne dañ daan seeg seen jaam kon baabu léegi dañu seeg seen jaam yi léegi nag ñu bëgg a nag euh, bu ko jëndee balaa mu mun a siyaare mu faaw mu laab noonu la wax euh, ñeenti anam yi lay lay utiliser mu ne wa tafsilu teqale fi salis toqal tariqatul magharibati moom mooy yoonu waa maghrib waxtasara gàtta ñu la aliya moom xalilun xalil fa yé moom almasharatu mooy li gën a fil mazhabi si ngir bi nee na diir euh, si tur ndox ñi teqale euh, tóndox loolu waa yoonu waa maghrib ñoom ñoo teqale si ñeent anam yooyu na comme ñu ne euh, bu dee dafay teqalikoo moom lu gën a bëri foofu lay foofu lay waree mu njàpp bu dee lu gën a euh, bu dee bu dee bu dee gën a wàllu la foofu dafay war mu jàpp waaye dañ koy sopp bu dee lu gën a bëri jour bi la dafay war mu jàpp dañ koy sopp lu may mu jafe bu dee journée bi yëpp la kon ba foofu war mu jàpp soppuñ ko kon ba loolu waa Maghrib ñoom ñoo ko teqale ko noonu naka noonu xalil si noonu tamit gën a si ngir maamaay si loolu lañ ànd xilaafa ngir uute nag li yi nag ngir yoon waa iraq fi istihbaabil wudu yi si soppak jàpp fi kulli suratin si bépp melo nee na uute nag waa ah, waa waa iraq yi ñoom ñoom ñoom ñoom dañoo sopp njàpp bi si anam yëpp comme ah, journée bi yëpp dañ koy sopp li gën a béy jour koy sopp naka noonu tamit euh, euh, genn wàllu jour bi da ngay soob waaye jàppal ni tamit bu dee day teqalikoo moom lu gën a bëri foofu jàppal ni dafay yàq njàpp rek kon tey loolu lañu andi woon si darsu juróom benneel bi in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu